Euh, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi am euh, contentement mbégte di leen nuyu di leen euh, ziar di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di am contentement mbégte dellu siwaat fi nga xamante ni moom moo di wasaare lamb daal di fi dalal ndaanaan bu mag ñu gën koo xam ci Pape Sène nekkee Kër Massar ci yëngu ci wàllum lamb tey ñëw fii nga xamante ni moom moo di États-Unis d'Amérique laata loolu maa ngi nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ñu ngi yëngatu ci wàllum lamb ñëpp ñoo xamante ni euh, moo xam ñi nekk ci site internet yi moo xam ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ci plateau télévision yi euh, di ci liggéey euh, di nuyu bu baax a baax sunu per Bécaye Mbaye di ko jox wàccuwaayam di rafetlu liggéeyam bu baax a baax ci wàllum làmb Pape maa ngi lay ziar di la tatagal di la jox sa wàccuwaay naka xidma yi waaw ATM maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu waa Sénégal parce que avant tout tamit Sénégal la am di nuyu waa États-Unis d'Amérique vraiment di kontaan nag ci invitation bi parce que vraiment honneur la ku ne xam na ne vraiment fii yaa ngi fi bay sawar li ñu naan euh, picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf vraiment làmb moom euh, yaa ngi koy dekkil fii ci États-Unis boo xoolee ñun tey mbër euh, vraiment macha allah bari nañ fi. du dara nag lu dul euh, làmb moo yaatu rek. Mhm. ñu ñëw fii di euh, am bon yeneen expérience yu ñu fiy jëlee. Mhm. parce que tamit ku ne xam na ne bon àdduna moom expérience la rek. Mhm. te vraiment ay États-Unis moom ku ne xam ne dëkk bu mag la. et vraiment ñu ngi fiy jàngee lu bari. fekk fi tamit suñuy nawle yu baax. yoo xam ne ñooñu fiy jiitu parce que tamit olof Ndiaye nee na ku la jiitu ci néeg bu lëndëm euh, moo lay wax fi ngay toogee. vraiment di profiter occasion pour di gërëm suma gars yi ne fii yëpp waa New York City. vraiment maa ngi gërëm ñëpp eh, ku ci mel ni grand coxo eh, vraiment di grand bu baax loolu moom vraiment def naa ne kenn waxatu ko eh, di gërëm waa 116 ñoom Mafal et tout et di gërëm tu suma nit ku baax vraiment Naar Touré nekk ca New Jersey mooy maa ngi koy gërëm di ko sant muy nit koo xam ne nii ginnaaw yàlla ak yonent bi tey su ma duggee États-Unis yàlla ak moom moo tax ñu ngi lay jaajëfal di gërëm tamit ki nga xam te moom moo di euh, grand coxo comme ni nga ko waxee euh, gërëm waa 116 amuñu ñu ñu dul ñoom euh, di jaaree noonu di gërëm bu baax a baax waa Baobab ñoom ki nekk ñoom may munaak ñoom moomi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ñëw ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum làmb yàgg nga ci làmb am nga si expérience def nga lu ne ci làmb mbër bu toll ni yow en tant que mbër bu toll ni yow nga toog at bëriwoo nu mu la def waaw bon euh, dëgg la métti na trop nag mais nit ku ne xam na ci li ngay liggéey. Mhm. et vraiment ci ngay am des hauts et des bas. moom moo mel noonu et que vraiment nit ku nekk et boo sañoo am la la gënal mais nag eh, nit di nga bëgg dara sax du gën ci yow. Mhm. loolu dañ koy daal di comprendre xam ne boo euh, vraiment loolu du man boo xoolee mba làmb ji ni muy doxee ci at yi mhm. nga xam ne vraiment métti na trop. parce que léegi da ngay gis moom mbër bu toog euh, deux ans ba trois ans du bëre mais kooku du fatu mbër bon xëy na bon bon affaire bi si bon bon les responsables sont partagés mënoo ne kii la mënoo ne kee la xëy na bon euh, manque d'organisation la parce que boo xoolee tey euh, réew mi mel ni États-Unis boxe yi fii am et bon c'est des des milliards mmh te à tout mu ngi am kon ba nga xam ne làmb eggagul fa milliards kon ça veut dire que lamb bu bloqué woo rek dafa am lu ko bloqué. léegi nag loolu ñun acteurs lamb yëpp ñoo war a toog. et xool qu'est-ce qui ne ñu réglé ko. Euh, bu waree am sax les assises de de la lutte. mais jar na ko. ñi toog jël anciens yeeg bon ñi nekk en activité yëpp toog. ak euh, ñi nga xam ne tous les composants de la lutte. ñu xool ne liit moo tax lamb ji doxatul ñu jëm ko doxal. parce que lamb li may wax rek facteur de développement la. te lamb industrie la. parce que tey Modou Lo ku mel ni Balla Gaye mhm. ku mel ni Eumeu Sène mhm. bon ku mel ni Ama ku mel ni Boy Niang ñooñu toll nañ ci lamb foo xam ne tey ji ay société lañu. Mhm. parce que tey boo xoolee tey fi ñu toll a ah, cachet yu ñu fayee ko ak ñi ne seen ginnaaw eh, ak ñeneen ak ñeneen parce que la ma mbër liggéey la rek. boo xam ne xëy na yàlla moo ñu ko jagleel. te nit ku nekk ci li ngay liggéey boo soxee da nga ciy tedd. kon daal mooy ñaan vraiment autorité yi. surtout le président de que tey jii làmb bu sooxee rek. bon am na ci part de responsabilité. Mm-hmm. parce que bon boo xoolee tey société yi nga xam ne ñoo war a sponsoriser lamb ji. Mm-hmm. bon tey am na ñoo xam ne bu ko waxoon ak ñoom wala mu jàppale leen dañuy daal di xam parce que ñoom à chaque fois boo xam ne nii mën a dem ci sponsoring bi. Mm-hmm. ñu sponsoriser lamb ji lamb ji ubbeeku ñu xam ne ne lamb ji am ñu ko yaakaar. parce que boo xoolee tey bon bi may mujjee xam on était huit mille licenciés léegi xoolal huit mille jeunes ci population bu mel ni Sénégal nga xam ne nii on est à quinze seize millions. huit mille jeunes wala huit mille jusqu'à dix mille jeunes mm-hmm. ñu jël benn sport xam nga jël benn affaire bëgg ko yaa ngi dégg di entraîner am doole nekk des jeunes yoo xam ne nii boo xoolee seen moyenne dage entre dix huit ans et vingt cinq ans mm-hmm. ñu ngi seen digg doole mm-hmm. boo ñu oñu tey boo leen encadré wul mën nañu am déroute def loo xam ne du la neex parce que ndaw bu am yor yor dooleem yaa ngi dégg toll foo xam ne expérience bi ñëwagul kooku tey xam nga boo ko jàppalewul mun na mel neneen noo xam ne neex. ci ci ci biir loolu la ñuy li ñuy li ñuy ñëw euh, xam naa ni li ngay développé am na solo trop trop trop macha allah euh, te xam naa ni euh, comme jot nga ko génnee si sa si sa si sa lamine muy nekk kàddu boobu te ni yaa ngi koy wax ci ci ci ci wasaare nit yi di di di fas yéene koo déglu fas yéene koo gis am na ci ay autorités yoom te ni tamit dinañ ko déglu xam naa ni ci wàllum autorités yi ñoom it dinañu fexe bàyyi bàyyi seen bàyyi seen laaj ci ci wàllu woowu. waaye yéen ñi nga xamante ni yéen tamit yéenay mbër yi yéen yéen a yor yéen nekk di làmb yeneey nekk ci géew bi euh, léeg-léeg est-ce que tamit du jotul tamit ngeen jóg waxtaan si seen biir parce que euh, li ngeen li leen di proposer ay làmb mbër yu bëri di leen di proposer làmb ñu dem ba ci biir ñu ne duma ma bëreeg diw du ma kii duma ma bëreeg kële ah, kii du sama naataango palmarès bi mu def def def bi ma def defu ko euh, est-ce que tamit loolu gàllankooru leen ci ci wàllum combat yeeg yooyu noonu waaw waaw boo boo xoolee tey jii bon làmb li ko gën a yàq mooy copinage bi parce que tey boo xoolee tey bon am na am na mbër yoo xam ne toog nañ tey bon tey xam nga wane amitié boo xam ne nii tey seen combat mënatu taxaw ci bëtu nit ñi. Mm-hmm. yaa ngi dégg te ñooñu tey mënoon bëre parce que bëre foo la li Tyson doon wax foo la mais foo mu ànd ak teraanga. Mm-hmm. teraanga nag bon caaxaan war la ko yàqal. Mm-hmm. parce que bëre du guerre du xeex du dara ah, bon teraanga la comme yeneen sportif sport yi. Mhm. yaa ngi dégg bon mbër mbërëm moroom mbërëm moom mooy marchandise am. Mhm. yaa ngi dégg bon léegi bu bëggee am nag ay duma ma bëre kii du ma bëre kii du ma kii et bon finalement day naqari. Mhm. parce que am na ñoo xam ne tey jii loolu bu amuloon tey seen combat day neex. mais boo xoolee xaritoo bi am bon day tax ba nit ñi sax après dañuy jàppee làmb léegi ay nax. parce que tey boo xam nga bon bu fekkee ni tey dama yàlla baal. du ma cité quoi du ma lim mais nag ku ne xam ne ne loolu lu xaw a yàq làmb la. yaa ngi dégg diw sama lii la du ma bëreeg moom wala diw maa ko raw yaa ngi dégg yooyu yëpp day yàq làmb. te ku ne xam ne ne boo le temps passe vite. ah léegi boo xoolee daal làmb yow ATM ku ne xam nga làmb nga. bon boo xoolee làmb dix ans ci ginnaaw. ni mu doon doxee. ni mu doon doxee ak léegi yaa ngi dégg ak euh, vraiment boo xoolee dix ans ci ginnaaw. Mhm. Euh, euphorie bi làmb amoon. mais wàññeeku na. Mhm. parce que tamit làmb bon dëgg la ñi mbëri ñooy bëre mais dafa am lu ko lu lu ko wër parce que làmb dafa yaatu. Mhm. du tout seulement ñaari mbëri ne ci géew rek mooy lamb mhm. yaa ngi dégg surtout làmb yu mag yi nga xam ne nii bon sont les gros cassés. kooku ay montage financiers la. te kooku dafa laaj ay sponsor encore tamit violence bi tamit bokk na ci li nga xam ne moo gër a yàq làmb. parce que sponsor ku ne xam ne nii dafa bëgg une belle image. mais léegi bu sponsor amee xam nga di gis ay xeex ay sànnante xeer ay bopp yu naaj kooku loolu ni c'est pas c'est pas c'est pas joli à montrer. Mhm. moo tax sponsor yu bëri daw. Mhm. mais boo xoolee jël jamono yoo xam ne nii ay lu mel ni compagnie yu mel ni ay Orange ay Tigo xam nga ñëw nañ ci làmb. Mhm. imagine toi tey bu ci ku mel ni Expresso bokkoon ak yeneen société yi ne Sénégal yaa ngi dégg làmb ji du waxatuñu ko. mais li daw mooy sponsor yi mos naa ko wax sama benn euh, émission moo doon def ak waa Lutte TV mu mën leen carrément problème bi du mbër du kii. Euh, mbëri du du mbëri. Mm. mbëri la sax parce que tamit. mais mais mais mbëri mbëri yi ñu ngi ci biir. waa mbëri ñu ngi ci biir parce que. te booy seet te booy seet sax li li indi problème bi dëgg-dëgg euh, boo ko xoolee ba ci biir euh, problème bi euh, ci mbëri yi la nekk ci mbëri yi. waaw parce que mbëri yi sponsor yi dëgg la ñoom ñu ngi jàpp ci làmb ji am nañ am ngeen ci tuuti problème pour ñu mën a jàpp ci làmb jeeg yooyu mais tamit mbëri yi faaw ñoom it ñu jéem a jàppalante seen i biir jéem a bërente seen i biir bàyyi histoire yeeg xuloo yeeg man kii du ma bëreeg moom parce que lii la ma wax wala genre yooyu noonu faaw ngeen tamit ngeen xoolaat seen bopp. boo xam wàllu xam nga euh, ATM. Mhm. ku ne xam na ne sport surtout làmb du ay signature de contrat du ay wax yu ñaaw du ay mhm. saaga làmb ci géew ba la bon mbër yi mun nañ ñëw def ay discours yu rafet. Mhm. yaa ngi dégg bañ a bañ a bon excité seen i supporters bàyyi ba jour combat ba ñu bëre combat bu neex. mbër yi mën nañ waxante wax yu rafet te teewul bu ñu ci combat bu ñu rente tey boo xoolee tey damay jox exemple un lutteur comme Eumeu Sène mhm. kenn mësul dégg ci moom benn arrogance mhm. kenn mësul dégg mu ci moom wax boo xam ne day wax wax bi pour xam nga supporter am mi xam nga kii nangam nangam mhm. yooyu da ci am solo parce que boo xoolee pratiquement bon mbër yu bëri ñooy conditionné seen seen seen léegi am na noo xam ne nii bon violence bi bon premièrement violence verbale lay doon am na nooy waxee rek bon supporters yi commencé reetal seen biir. te fekk ni yéen mbër yi xam nga terang yi yéen terang yi yéen a ko ci yéen lay mujj. kon mbër yi nañuy wax ay discours rafet bon mun nañ def seen show mais tamit xam nga bañ a wax yenn wax yi bañ a bon excité seen i bu ñëwee ba jours yi nag ñu rent ci géew bi pour un laps de temps. après mu jeex. cest à que boo xoolee bon làmb euh, bon charme bi daal vraiment mu ngi bëgg a réer. te loolu du yoon. tamit xam nga nit doo mu mujj a puso mu réer loxo. Mm-hmm. parce que làmb ji boo xoolee moom fa mu jogee ci bon ñoom mbër yu mag yi. Mm-hmm. ba ci ñoom Tyson. Mm-hmm. vraiment làmb ji mu ngi woon ci benn euh, dynamique bu normal. léegi nag boo xoolee bon génération bi mujjee ñëw. ak xam nga communication bi parce que man vraiment des fois damay dégg ay signature contrat di ma ci dégg ay wax yoo xam ne nii te gis nga ni nga gis nii agression verbale moo gën a garaaw. parce que tey mun naa la dóor ñu de nga fàttali ne sax mos nañu xeex mhm. mais am na wax boo xam ne ATM moo la ko xasee wax tey mhm. fii ba àddunay tukki saa yu ma gisatee da nga yaakaar wax bi tey laa ko moo tax dañuy moytu yooyu wax di wax ay wax yu rafet wax yu nice mhm. te te bu ñu waree bëree ñu bëre bu ñu waree xeex ñu xeex ci géew bi après bu jeexee ngeen xam nga saafonte kenn ki jóg seeti moromam après bu ko defee ñu xam ne làmb bon teraanga la quoi après mm-hmm. comme ci teraanga gi ngay wax ak ci wax ji ngay wax euh, moom moo indi li nga xamante ni euh, ci diggante euh, Baye Mandione ak guy Gui fan yi ñi ngi gis ni ñoom kenn ku si nekk am na ñu ay kàddu yu ñuy sànnante ci ci site internet yi yow naka nga ko gisee waaw loolu ñaawlu naa ko trop ñaawlu naa ko trop parce que tamit vraiment xaste warul am doomu aadama du xas sa morom surtout mbër ak mbër morom moromam parce mbër ak morom mbërëmam moom mooy mbokkam parce que nga xam ne tey jii dama yàlla baal yéen ñaar mais yow tamit ñu ngi leen nommé fay leen ay millions. Mhm. ci loo xam ne ay fo la. waaw gis nga boo xoolee tey ATM bon tey jii boo xoolee tey bon yow gis yaa ngi fi États-Unis grand coxo mu ngi fi yaa ngi dégg xam nga yéen fii oh, yéen yéen ñu fi yéen fi yéen fi dalal xam ngeen ne bon xaalis yombul nga nekk mbër nekk xale bu ndaw xam nga ñu lay fay ay millions parce que tamit promoteur ils ont du mérite parce que boo xoolee tey jii nga promoteur. yow xamoo nan la def ba lijjanti xaalisam jox la avance am yow avance boobu mu lay jox noonu yaa ngi réglé sa problème famille yaa ngi réglé say yaa ngi fay say dette yaa ngi dépense yaa ngi lekk yaa ngi naan te combat amagul est-ce que combat bi dina am tey boo xoolee tey ji l'exemple de Luc Nicolaï mu ngi taxawal combat après moins d'une semaine ñu tëj ko imagine toi kooku tey jii bon xaw ma parce que man tamit maîtriser ma affaire yi est-ce que tey kooku bu jëloon ki yëkkati xaalis jox euh, Modou Lo yëkkati xaalis jox Ama Baldé léegi moom xam nga génnul ci kaso bi kan mooy perte du moom. ah te xaaj boobu est-ce que mbëri dañ koy delloo duñ ko delloo kon bon tamit war nañu am tuuti respect ci promoteurs yi di leen jàppale tamit yaa ngi dégg bañ tamit xam nga ak kase yi parce que tamit boo xoolee tamit loolu tamit pertement la rek parce boo xoolee tey ñu fay la cinquante million nga ne noo daa tuuti après yow nga toog deux ans bëree kon nga bëroon cinquante millions sax moo gën yaa ngi dégg c'est-à-dire que tamit affaire question d'organisation la bon après xam nga question de Jarna sax bëriwut ay manager ñu leen di manager management manager yoo xam ne nii ya xam nañ bon kon ah, ah, affaire de combat ni muy doxee sport de combat ñu leen di xama di xoolal xama bañ leen di xama tamit parce que tamit booy déglu ñu naan ay non non bul jël lii bul jël lii pratiquement ñu tey boo amoon problème du kenn ku la koy jox man sama exemple loolu la ma sa demee suma carrière musuma nangu nit naan ma non lii la fay dafa ndaw parce que pratiquement ñi la koy wax tey boo amee problème ordonnance tey la ko jox yaa ngi dégg man di xama dama doon gis ci ci ci ci loolu dogguma yàlla bu la dee dog parce que danga nga souligner lu am solo loo xamante ni dal na làmb jamono ji euh, mu metti loolu muy ki nga xamante ni moom moo di euh, Luc Nicolaï euh, te ku ne xam na ni Luc Nicolaï làmb bu dul làmb jinne tëgg na ko ci ci ay combat ci làmb Sénégal defal def na ci loo xamante ni vraiment war na mën a tax ñu mën koo ñu mën koo ñaanal sunu borom jàppale ko ñaanal ñi nga xamante ni tamit ñoom ñooy autorité yi Euh, di ko ñaan président de la république bu Sénégal euh, mu daal di si euh, def ay jéego taxaw si ñu ñu ñu ñu ñu jàppale ko su ko defee mu mën a yeggale liggéeyam parce que defe naa ni kuy jàppale ndaw yi di jàppale réewum Sénégal kooku. am na avancement boo xamante ni mi ngi koy yokku ci li nga xamante ni euh, moom moo di euh, ci réewum Sénégal euh, kon loolu rek la amoon lu ma ciy ñaan mënuñu ci waxaat leneen comme dafa def defut loolu duñu du ñun ñoo koy lijjanti am na ñoom den ñoo koy ceytu waaye ñu ngi ñaan président de la République bu Sénégal man ATM personnellement fii ci États-Unis d'Amérique maa ngi koy ñaan ñoom ñu dox si ay jéego rek su ko defee ñu def si saafara mu mën a yeggale liggéeyam. waaw boo xoolee combat jar na ko sax quoi euh, bon dëgg la léegi ku ne xam na ne bon problème bi li nga wax rek ñun maîtriser wuñu ko euh, bon mu ngi ci loxo justice te defe naa ñun ñëpp am nañ confiance seen justice mais ku ne xam na ni Luc tey boo xool il a fait au moins euh, bon les trois quarts de sa peine parce que jot na tëdd kaso xam nga après mu génn bi mu génnee après mu dem appel xam nga appel après appel bi mu ñàkk mu def dem cassation cassation bi xam nga moo indi verdict bi moo waral tey yoon toppaat ko mais boo xoolee tey li ko tëdd dese ci kaso bareetul am na benn amende bu mu war a fay mais yooyu yëpp boo xoolee ci fii bu doon États-Unis yooyu ay caution la rek yoo xam ne nii mën nga bàyyi borom mu continuer même bu dee da nga koy def ci liberté conditionnelle wala provisoire yaa xam mu dem ko ni liggéeyam parce que tamit quoi qu'on dit tamit li ku ne xam ne c'est un promoteur bon c'est un xam nga rek bon c'est un investisseur parce que tey combat bii muy Ama Baldé Modou Lô bon boo xam ne nii ne xam ne c'est demande sociale combat boo xam ne ku nekk xam na ne combat gënu ko jaadu ak nii. te sax askan bee ko soxla. te combat boo xam ne tey mën na relancer lutte mën na relancer lamb ji parce que combat boo xam ne dafa nekk combat boo xam ne nii bon combat bon combat jànq la bu combat boo xam ne dafa jaadu ko lu mel noon tey bu nit jogee fee tamit promoteur yi bari nañ fi. Mhm. ah te ñu ngi fi gisoo keneen ku ci jéem a intéressé ci combat bi parce que xëy na bon xam nañ ne boo métti na mais comme lutte yàlla may na ko am na ay pexe. yi mu tegee làmb parce que ku ne xam ne Luc tamit c'est bon c'est l'homme des grands événements tamit lu ne def na ko fi lamb moom tey promoteur mënoo ko wax te waxoo Luc Nicolaï yaa ngi dégg man xaw ma kuy premier kuy deuxième mais xam naa ne il fait partie des grands promoteurs du Sénégal kon tey bu taxawal bu jógee tey bon intention pour taxawal combat bi bon ne serait-ce sax ñu yërëmoon ko ndax loolu moo may ko tamit xam mu eggale combat bi sax après leneen luy am mu am mais tey xam nga tey bon tey Sénégal yi bon dañ leen a bàyyi à leur fin parce que tey bi ñu ne combat bi taxaw na vraiment Sénégal commencé woon nag làmb commencé woon na di dundaat ñii di werante te ñu xam ne làmb moom Sénégal bon dara ëpp ko fa doole du benn sport ci adduna ci Sénégal bu ëpp làmb doole mais làmb làmb jooju sax defe naa ni ba léegi mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci tànk taxaw parce que euh, ki nga xamante ni moom moo di doomu Luc Nicolaï moom génn na. Euh, moom doomu ko Nicolas génn na ba ba wax ni làmb ji dinañ dinañ ko continuer euh, dina di maanaam taxaw na dinañ ko continuer amul lenn lu koy teree euh, continuer te papaam woo na ko waxtaan ak moom kooku dina dina jàll.